mbaa yéen a nga ca Abdoulaye Daouda Diallo mi nekkoon directeur de cabinet bu njiitu réew mi Macky Sall léegi moom la ñu teg ci bopp conseil économique social environnemental Modou Faye Idrissa Seck ginnaaw tekk ndombal tànkam ci gouvernement bu Sénégal bés bi la journée ginnaaw tekk ndombal tànk Yankhoba Diattara ak Ali Sale léegi ñoom ñaar ñëpp seen poste ministère yi Amadou Ba moo ci doxal yokk ci poste premier bu Sénégal bi ñu ko dénk yëgle kaay groupe immédiat bi ne na waaye na lool li xew ci palais ba te fii ak premier bu Sénégal léegi moo doon premier ministre bu Sénégal te fii ñu indi yeesa ci gouvernement bu Sénégal bi Amadou premier ministre bu Sénégal moo doon ministre des sports ak ministre de l'élevage ginnaaw tekki na ba tànk Yankhoba Diattara ak Ali Saleh lii bés bi la journée mbiri nag mën na gën a compliqué lool ci kaw Amadou premier bu Sénégal ginnaaw tabaski gi teeru réew mi ak CAN di Coupe bi lii nag mën na compliqué diis gann ci wàggam libération ne Amadou Ba moo ca doxal yëglekaay bi ne Idrissa Seck ne tekki dee ndomal tàng waaye nag bàkk na lu rëy njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw liggéey bu mu sumb ci réew mi ba noppi nag ne moom mooy chef de léegi nag mooy nouveau homme bu ses ndax moom moo fa wutu Idrissa Seck Le Soleil ne ginnaaw tekki ndomal tàng Idrissa Seck ak ñaari ministre mi gouvernement bu Sénégal ak conseil économique social et lépp la ñu yeesal laas ne ñi del parti réew mi kay nee na dina wax way juru jigéen bu njiitu réew mi Macky Sall Wade ndax te rafetlu na lool liggéey bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall su a ko daal ci réew mi le temps ne ginnaaw tekki ma tànk waa réew mi ci gouvernement bu Sénégal Macky Sall indi na soppire ci mbiri ba noppi di wéy di doxal moom mi jóge ci gouvernement bu Sénégal bi di Idrissa Seck yëgle kaay bi na rafetlu na lool liggéeyu njiitu réew mi Macky Sall ba noppi nag ne moom mooy chef de l'opposition bu Sénégal le quotidien Macky Sall ngay waxtu yi nag moo yore carte yi ci yoxoom bu ko neexee baat rek kupp fu ko neex te ginnaaw dialogue bi moom gaay dañuy dox jëm kanam muy dox wax di dellu gannaaw ndax li am barke démboo njaay diggante Idy ak Macky daal firnde la ci vox sobi ne en tout cas Abdoulaye Daouda Diallo nag léegi moo nekk ci bopp kuréel wi di conseil économique social et premier ministre Amadou Ba ñu jébbal ko ministère sport bi ak ministère de l'élevage ginnaaw ñaari gaay réew mi tekki seen ndombal tànk yëgle kaay bi ne ginnaaw lii lépp nag foo soppite gu rëy am ci assemblée nationale ndax am na benn député bu waa réew na ci en tout cas daal kàddu yi nekkul benn diggante Idy ak Macky mburoog soow ndax tam Idrissa Seck dañ koo dàq wala boog dafa tekki ndombal tànkam léefo ne en tout cas départ Idrissa bi ne ci gannaaw bu Sénégal ak ministre bi jur na coow lu rëy ci réew mi ndax ñaari version dëgg ci amee vox fami ne en tout cas ginnaaw kàddu Idrissa Seck yi Ousmane Sonko ñi dal Pastef daal mu koy tontu ndax moom waaye njëgi daal duñu benn déedéet ñi nekk la Ousmane Sonko ne xëccoo mooy chef de l'opposition waaye nag bés wàccee ci terrain bi dinañu xam kan mooy chef kan mooy adjoint ak kan mooy surga bi l'observateur ne ginnaaw tekki ndomba tànkam ci gannaaw bu Sénégal bi moom Idrissa Seck waxtu bi nag daa mel ni ko beru ndax l'opposition bu Sénégal daal des nañ ko wóolu ginnaaw cokkaas Ousmane Sonko ak docteur Abdourahmane Diouf mi nga xam ne yekk na ko lu mel ni xamee moom njiital parti réew mi laa lay wax bi l'opposition bu Sénégal bi nga xam ndax ñoom ñëpp seen gën fa ko teg yëgle kaay bi ne réeroo nag ma ngay bëggaam ci waa parti socialiste ak waa benn bokk yaakaar yi ca Kaffrine te waa parti socialiste génnee ci coalition bi ca Kaffrine bu mu bett kenn ndaxte Abdoulaye Wilane nag nee na lu jiy njaag nag Abdoulaye Seydou Sow mooy njaag looloo tax ba ñuy menacé ak dankaa ngir génn ci coalition benn bokk yaakaar bi jamono jooju ñu jël Pastef nee na day tàmbaliwaat nemmeeku turam bi mu ngi ko xamle ci vague soble ba noppi di dankaafu njiitu réew mi Macky Sall ndax ne Ousmane nee na élection wu mënta mukk ci réew mi te du ci bokk ndax loolu xel daal mën a si ko xalaat déedéet Ousmane Sonko ne coow lu bëri na ci réew mi te lii lépp na commune bëri la ndaxte gars yi yaakaar ni ñoon politique ak 2000 lépp benn la waaye daal na leen loolu laat jeex na fi 24 heures jëmee ci atum 2024 te xibaar moom ci wow ko joxe ginnaaw waxtaan gu mu seeg ak waa CAP 2024 yëgle bi ne du yàgg dara moom Aliou dina def nag déclaration gu rëy jëm ci élection présidentielle waaye na leer ci bopp ñëpp ndaxte grand place nee moom Aliou nag moo doon candidat AFP doon candidat CAP doon candidat itam bu gauche bi te seen bëgg-bëgg bu antoo ci bopp réew mi nag mooy yoreen goo xam ne ñëpp dañ ci gis bopp yëgle kaay bi ne nga yëg nga Sénégal bés bi la journée waa CAP nag ñoo ngay yëgle seen baat ci kaw ndaxte nee nañu seen bëgg-bëgg dëgg nag mooy ñu teggi loxo Pape Ndiaye taskatu xabaar bu Walf Fadjri vox populi ne gars yi kay fësal seen njàkkare dëgg nag te du ñàkk ay bés bi nu dëgmal dañuy yënga-yëngal ngi ñëpp dégg leen coow li jol ci ngoor enquête ci la xëy ni ki tey jii yëgle kaay bi ne gendarmerie ba fa mën mee ko sonoon looloo tax na ba au commandement bi bëgg ñu toxal ko doole yi ak contribuable bu Sénégal te jëriñul dara réew mi député bu woon Malick ci la tribune ne xel mënta xalaat mukk ci réew mi élection présidentielle am fite Ousmane Sonko du ci bokk Bougane Gueye Dany du ci bokk Khalifa Sall du ci bokk Karim du ci bokk moom Malick ne li ne sawu anto élection yi daal du légitime mukk ci réew mi les secondes Ousmane Sonko Cour suprême ko débouté ginnaaw bataaxal gu mu dugaloon jëm ci coow Sweet Beauté fukki plainte ak benn yoo xam ne daal mu ngi ci kawam wàlli tamit mbaa jàmm la ñu bàkku jëm ci lamb ji ak sunu lamb yëgle kaay bi ne Balla Gaye dëna waxtu wi ndax dina am xarañteef dëgg ngir jël revanche ci kaw Eumeu Sène ndax day Balla Gaye de waxtu wi état de forme daal baaxul rax ci doole nekku ci forme li a teey xelu sunu lamb ba tax mu ne ndax Balla Gaye de mën a jël revanche am ci kaw Eumeu Sène lëkkalu jene mbir mu doy waar moo amee ca Vélingara ndax ñaari nag ñaroon xëccoo jiite ca jàkka ja coow lu rëy joole seen kaw ndax ñaari dem nañ sax boy dóorante kurpeñ seet loolu rek